njiitu football ak directeur sportif loole daanaka solaar yi yéen ñi ko xamul dub solaar nag waaye képp kuy topp Real Madrid xam nga ni équipe boobee def na fi lu nekk wàll wàllu football digg militaire ba ak attaque ba lépp yéen gone yi du ngeen ko xam merengue yu ndaw yi waaye merengue yu mag yi nga xam ne daanaka yàgg nañ ci football dana xam kookee ñu sant leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam abonnement yi bu leen ci des ginnaaw ndax loolee dana tax lépp luñ coppati ngeen man ko am Barcelone am na ndam tamit wax dëgg yàlla ndam loolee daanaka ñëpp kontaan nañ ci te kuy ko talaan kontaan nga ci donte nag daj nañ lu mburu daju doon ci taal balan koo yebbi manga nga noone Santiago Euh, kii di Solari nekk na nouveau directeur sportif bu Real Madrid loole nag day soxal wàllu football bi nga xam ne njënd maa njaay ma ak lépp loo xam ne jëm na ci caytu ay football kat ak xarañteeg football loolee dana ko mën di dékku bu ko defee segg ko ba mu nekk euh, seggin moo xam ne du am benn téex mu man cee jot moom mi di Florentino Pérez daal ji def li nga xam ne mooy dernière solution bu fekkee nag moom moomee a tabb nañ ko lépp lu jëm ci wàllu sport dana ko xam bu baax a baax dana ci mën a déggoo kii di Carlo ti ak doom ak président ba di Florentino Perez nekk bon nouvelle ci Real Madrid nekk xibaar boo xam ni jàpp naa ne renforcement de taille la boo xam ne équipe bii di merengue yi di gone yi sol mooy weex yi am nañ ko loolee nekk na ngëneel loole tamit ñu ñaanal ko jàmm mu dal jàmm ci këram gi nga xam ni daanaka kër la gu mu xam kër gu mu miin ay victoire yu bëree bëri daal di koy sonal nag foofee ci club bi nga xam ni ñu bëri jàpp nañ mooy meilleur club du monde ma joge foofee dem ca Barcelone Xavi mi nga xam ne daanaka fu ne wiic na fa ngir mën a amub victoire sonn na tey daanaka ñàkk tooy xëpp la def foofe nga xam ne daanaka moo nekk Espagne ci match bi nga xam ne am na ko digganteem ak Almeria Almeria nag ñoo fekk si waaye nag bu ñu gisee eh, ñi nga xam ne ñoo dugal mën nañ ci ràññee ki nga xam ne mooy Rafinha ak Sergio Roberto mi nga xam ne daanaka ah, faj na gars yi fajaat ñu gars yi mu nekk ab doublé boo xam ni maanaam jàpp naa ni kookee di safi daanaka soit bi mu def tey jii ci digg milieu terrain bi boo xam ni ah, bu gagnant gagnant ndax moom di a ab latéral la gën a mën day football ba attaque nag polyvalent la ah, fu ñu ko samp mu jël waaye tey fi ñu ko samp nekk na mbégte ci équipe nga xam ni mooy Barcelone ngeen de partage aimé suñuy vidéo te it abonné di xaar information yu wér te wóor jërë ngeen jëf